mooy sa dund dana soppeeku jëm ci li gën wërsëg bi dana yokk teraanga yi dana yokk euh, incha allah waaye balaa ñuy dugg ci émission bi yow mi ñuy seetaan bu fekkee abonné ko ñu ngi lay ñaan nga waaye boo ko bësee nga activer cloche de notification bi bul fàttee tamit aimé video bi incha allah bu leen ko fàttee partage loolu mooy suñu doole bu ko defee rek euh, yow mi nga xam ne yaa ñuy seetaan bu fekkee da nga am gént mën nga ko envoyé ci numéro boobu ñu affiché 77 943 77 41 am na whatsapp waaye am na wave am na orange ne aussi euh, mun nga woote tamit appel direct ñu firi la sa gént incha allah bu neexee yàlla euh, bu ko defee rek juróomi gént yooyu bi ci njëkk mooy gént di jàng alquran wala di ko déglu kooku dana firi ne euh, sa sa dund dana soppeeku yiw bi dana yokk da nga gën a soobu itam ci ay projet yoo xam ne yu yu la jëmale kanam la bu fekkee jamono boobu danga nga doon nekk ci ay projet mooy projet yooyu yu sotti la incha allahu taala wala da nga doon xalaat di hésiter wala dana baax wala du baax xam ne dana baax bu fekkee ku doon waajal tukki la mooy tukki boobu dana jàppandi kuy waaj a dugg ci sëy mooy sëy boobu dana baax incha allahu taala euh, bu fekkee yaa ci doon ñaan lu mooy ñaan yi dana nangu kon loolu lu am solo la gént di déglu alquran wala di ko jàng dana firi tamit jege suñ borom tabaraka wa taala ndax dañ ne alquran buum la goo xam ne yàlla moo jàpp ci benn cat bi yow mi koy jàpp boo koy jàng rek euh, maanaam jàpp nga ci buum goo xam ne yàgg yàlla yéen ci bokk jàpp lu am solo la bu ñaareel mooy nga génte di julli maanaam jaamu yàlla de manière générale nga gént di ko def julli wala tudd yàlla wala nga nekk ci jàkka wala yu mel noonu kooku tamit dana firi ne euh, euh, yàlla dana la may chance lool incha allahu taala Euh, da am ay mbir yoo xam ne yu kawe sa njort la ci euh, ci dund gi incha allah loo xam ne sax yaakaaroo woon na dana demee noonu euh, say mbir daal ubbeeku dana ci am avancement dana ci am taxawaay richess da nga ko bëri la incha allah taala loo song rek yàlla mën na la cee defal barke da nga texe incha allah ci dundu àdduna bi bu neexee yàlla dana firi tamit ñaan gu nangu dana firi tamit jaamu yàlla yoo xam ne yàlla mu ngi la koy nangul dana firi tamit yàlla dana la xiir gën a xiir ci boppam dana firi tamit mujj gu rafet incha allah taala muy jaamu yàlla yooyu moo xam julli wala tudd yàlla wala euh, yu mel noonu bi ko ñetteel mooy nga gént di lekk tàndarma euh, nga gént di lekk tàndarma kooku tamit dana firi ne da nga am da nga bànneexu ci dund bi danga nga am wërsëg woo xam ne da nga ci dund da ko tal da ci bànneexu bu baax bari na ko am wërsëg euh, yàlla rof ko feebar ba talu ko wala ko am wërsëg waaye bor ya bëri ba talu yu ak yu mel noonu ay problème yu bëri yàlla dana la ci musal bu fekkee da ngaa gént di lekk tàndarma waaye da nga am wërsëg koo xam ne da nga ci jëriñu bu baax a baax a baax incha allahu taala euh, nga gént tamit di wër kaaba ga euh, jaamu yàlla la bokk na ci yi nga xam ne aussi moom mën na firi aj goo xam ne da nga ko def da am chance u aji wala da am chance u euh, tukki wala da am chance u boo xam ne daal yàlla dana la jégal say bàkkaar yépp ba lépp loo ñaan mu nangu loo sangu rek daan ko bi ko ñeenteel mooy ngi gént gis jigéen ju rafet jigéen ju rafet ci gént dana firi ay bunt yu ubbeeku dana firi ay projet yu réalisé wu dana firi tamit wërsëg boo xam ne dana tuuru ci sa kaw euh, dana firi tamit maanaam ay coono ak ay problème yu jeex dana firi tamit xol boo xam ne dana neex fu mu toll ak dund bu neex boo xam ne danga ci yu saa ju saawaan baawaan joo xam ne danga ci nekk yow mi gént lu ni mel bokk na ci juróomeel bi mooy euh, gént sol ay yëre yu bees ay yëre yu bees ci gént bu fekkee tilimul wala amul benn tache amul benn bën-bën wala benn xotteeku wala benn yàqu-yàqu dana firi ne tamit yow li ngay wut danga ko am incha allahu taala dana firi chance dana firi wërsëg euh, barke ak yu mel noonu lépp loo xam ni dana ko am ci dund bañ koy ñee niki noonu tamit bokk na ci gént yooyu gént mbooloo dana firi tamit euh, réussite ak lépp loo xam ne nit dana ko am bañ di ko ñëw ci àdduna incha allah danga ko am kon juróomi gént yi jàppal ne boo ko géntee rek ko am chance nga koo xam ne nit ñi danañ la bàyyi xel bu baax a baax a baax sa dund dana barkeel sa dund tamit dana am euh, réussite boo xam ne bu yaatu la incha allahu taala bu ko defee rek lii lañ jukki woon ci gént yi nga xam ne day firi ne euh, ku amul chance du ko gént ku ko gént rek xamal na borom cër bu mag a mag nga Eh, haza wa billahi tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu